màggal gi moom nañ ko daa defee rek luñ ciy bàyyi xel rek mooy fi jamono toll loolu nag suñ borom moo ko indi mbas mi yàlla xam li tax mu wàcce ko waaye kon li nga xam ne na ko mu Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon rek foofa lañuy ñuy jaaraat daa waxoon ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu àdduna li leen seen xam-xam jox loolu lañ mën a wax nit ñi mu ne nag ndegam gëm nañ loolaay ci tax a mucc nag nañ ci ànd ak ñoom kon loolu ndigalu sëñ bi kon sëriñ bi ne ne ñuy fàttali bokk jullit yi ak bokk taalibe yi lépp loo xam ne ñi yor wàllu kër docteur santaane nañ ko ci gëm ne mooy tax jàngoro ju du law ndax mu wóor nañ jàngoro ci nga di ko wàll nit loolu bàkkaar la kon laa dara darara wala diraara da ci dugg kon li nga xam ne docteur yi digle nañ ko ñoo xam nag détail ya tax yëpp sëriñ bi nee na mi ngi ci soññe nit ñi góorgóorlu ci def ci jiite fexe ba sàmmoonteeg loolu nga xam ne waa Kër Docteur ñu ngi koy santaane ndax fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun fàttali naa ko bu yàggul sëriñ bu dafa am ko ko wax ci mag ñi ne ko man de Mbàkke ñun de am nañu jaaxle ndax dañoo gis ne seen waajakat dafa bañoon docteur lool. te yéen ngeen fonk ko te xamul te loolu xaw ñoo jaaxal mu ne ko sëñ bi ne ko ah moom de daa def bu jàkkaarloo nit nit ne ko ne jàngoro bàyyil diw mu dem mu ne ko ndegam mënuñ loola nag ñu doy loo ko te yebal niñ ci docteur ndax sëñ Tuubaa nit ñëw na ci moom ànd ko jàngoro mu ne ko fakka chef naa maa bihi min duri mu tàggoog moom bi peste bi ñëwee ci njaareem tubaab bi ànd ak sëñ Balla Cooro ñëw di ko leeral sëñ bi fekk bañ ko njëkkee wax sëñ bi sëñ bi dana leen wéeri di gi de suñ borom a ko fendi waxtu ko jeexale mu jeex tubaab bi ñëw boo fekk na yii fi àgg na foo xam ne jaaxal na ñëpp moo ne ko dañoo bëgg ñu gën a leeral sëñ bi ndax xëy na jàpp ne siñ bi dafa xamut fii fi àgg ndax sëñ bi moom booba li ko boroom digg rek la xam ba mu agsee di ko war leeral peste bi ni muy rey ak ku jege ni muy faate sëñ bi ne leen qul inna al mawta allati tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum tubaab bi bi nga ko ko interprété mu ne ko damaa yaakaar ne xay ne dafa desee dégg li ko wax gën koo leeralaat mu leeralaat ko ko sëñ bi ne ko aynama takuunu yudrikumul mawtu wa law kuntum fii buruujin mushayyada mu ne kon nag kii moom moo ñun bokkuñ fuñ ne bis rek mu xëy xam leen ne suñu borom xamal ne ma ne moom mi fi wàcce woon jàngoro jeexal na ko kon ñu ne tam nañ xam ne ay mbindeef lañ rek yoo xam ne fu ko suñu borom yamal rek mu yem fa waaye nag kon lii ci war nga xam ne àddunaa ko indi suñ bi neen mi ngi ciy soñ ñëpp ndaxit it na ñun dañoo jaayante. ishtara min almu'minin anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna jaayante gi ngeen jaayante gi ñu jaayanteeg sëñ Tuubaa nag sëñ bi nee na dëggal ngeen ñëpp dëggal nañ ko ndax yi fi weesu yëpp firndeel na ko màggal gi daaw bi ñu koy woote nit ñi xamuñ woon la leen cay fekk waaye ñëpp dañoo dem ak seen positif ak seen dogo mu jaral leen bu seen bakkan desee mu jaral leen ko màggal gi jàll ñëpp maase ci wane ne màggal gi bayu jënn jeexa ci wér gi te mboolem luy wane ne wérdi gi amul da waroon na ko indi rek nit ñaa ngi ko doon def donte ñu donte nañu wattandi ko kon loolu xam na ne yàlla moo dox suñ digge moom ci barke suñ Tuubaa bisub xasida bu mujj bii bi Cheikh Mouhamadou Mountakha santaane ne ne ñëpp jàng xasida na mu ko bëgg na mu ko digle loola itam gis ngeen ni ko ci yàlla sagale Sëriñ Tuubaa ni mu ci wanewaate boppam booba kaay jege woon junni kaa par kon loolu li ñuy wax mantiq yan xel mënu ko xalaat waaye boobu moom gis na lu nit ñi gisut ba ko santaane fi mu nii yàlla na gën a jëm kanam waaye ay téeméer wala téeméer yu topp lañuy wax kon mi ngi wàcc kon ñun lu ñuy def rek dañ koy def ngir war koo def waaye lu ñu def rek yaakaar la yàlla lañ ci yaakaar ak doyloo Sëriñ Tuubaa kon na xam nañ ne li ñu def lépp sagale ko sëñ bi sagale ko ndigalu siñ bi tax ñu du ko def waaye ba bayit yooyu sëñ bi génne fan yii day wane ne adduru wa an an an adduru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani nañ xam ne yàlla képp moo mën a jariñ moo mën a lore wa in yamsaska llaahu bi durrin fala kaashifa lahu illaa huwa wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi kon loolu dogu googu nit ñi am nag sëriñ bi nee na yëg na ko waaye nañ xam ne nee na kañ ko kañ ko séqal muy sëñ Tuubaa gis na ko ñëpp dañoo joxoon seen i bakkan jox seen lépp bu ci seen dund yamee baax na waaye kon loolu mooy maa kaana allaahu li yadara al muminina ala ma antum alayhi xata yamisa al xabisa min al tayibi wa maa kaana allaahu li yudlihakum ala al xaybi yàlla seetlu nañu ba ndax li ñuy wax dëgg la ci ñunam déet ba mu ñu doon seetlu itam xamoon nañ duñ ci faatu waaye suñu dogu ak suñu ngëm lañ demee kon ëll seen yoon noonu bi la xëy bi képp lañ demee waaye suñ tuwaay wan na ci boppam. kon nag ñi gën a am yaqin di gën a rafet njort di gën a am yaakaar di gën a doyloo suñ tuwaay ci ne nañ ci yàlla musale woon daaw ren ji noonu lañu ci musale bu suñu borom bindee ne suñu bakkan ca la war a desit ndigalu suñ tuwaay nañu lu kopp te ñun ñëpp foofu la ñu war a te muy dëgg suñ suñu xol ku ko wax nag te dëggu ci yow yàlla mën nala la nattu ku ko wax ku ku du dëgg ci yow rek ndax suñu borom nanguwul loolu bu fekkee sa bakkan jëral lu ko boo ko engagé waaye bu la ko nag dara du la ci fekk na taalibe daa def di doxe fii ba xumaag lu ne mënoo leen mënoon na leen caa fekk daana jël ay satlo yu tàng di ko naan dara leen dul wàññi di dox ci kaw yu sàkket loolu xaal la loolee nag lam waxoon ne fa la saxaaba yi defaloo yoyante bi dama jofaaye ku ku ko defal la saxaaba yi defaloo yoyante bi mu defalal la yoyante bi defaloo saxaaba yi tolloo Cheikh Abdou Lahad kon ñi ngi soññ ñëpp la jiitu ci programme bi nag mooy première safar bi li ci sëriñ bi daa santaane ca commission bi nga xam ne mu yor wàllu mbale mi te sëriñ Cheikh mu Sëriñ Latif jiite ko bis boobu ñu ngi ci soññ ñëpp ndax bis la bis loo xam bisub jaayante la bisub xidma la itam di ko ànd ak sëriñ Cheikh jëmb mi nga xam ne moo jiite mboolem njëbatu maam Cheikh Ibra Fall gépp ak mboolem Baye Fall ak waaye mboolem bi Sëriñ Tuubaa ndax bu suñ seex jëmb jiitoo rek bi yëpp tàbbi nañ ci biir kon ñoom itam ñu ngi leen di soññal ñëpp suñ cheikh war na faa dem ci siñ bi ci ndigalu sëriñ bi ngir soññ leen ca ndax keroo dem nañ fa ci liggéey ba waaye dafa xaw guddi ngir fàttaliwaat leen ko waaye la sëñ Moustapha wax rek moo ci am nee na toogati ba sëñ bi di soññ ci mbale mi ak ñàkk jom la ci ñun kon ñoom fekk na ñu jekk ba noppi waaye ñu ngi ci soññi taalibe bi yëpp te ren lay gën a jafe kat ndax dañ daa dañ daa bay di buub waaye ren da ngay ngàccum ndox ba noppi door a wëlbatiku war a setal kon loolu itam nañ xam ne leneen lu dikkaat ci jamono la ba ca dolli ko waatit mooy njàngum alxuwaan bi nga xam ne ci premier safar bi lay tàmbule sëriñ bi santaane woon ko ci li weesu waaye mi ngi joxe waa ndigal bu premier safar tàmbulee penc yëpp fu ñu ko mën di def ba bisu màggal ga ñu di ko def di ko def addiyee rasulullahi di ko def addiyee Seex Xadim na ko kilifa mu jëkkee daa santaane loolu sëriñ Mouhamadou Xabaan Mbàkke Cheikh Mouhamadou mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgëre ab taxawaayam ci ginnaaw boo xam ne magam magam ju baax ji Serigne Mamor yoroon na ko te yoroon ko yoreen wu rafet boo xam ne adduna sépp ko seere bi mu fi bàyyi ko Serigne bi joxaan ndigal Serigne Modou Xabaan mu teguwaat ci loxoom ñu ne ci ginnaaw yi ñëpp ànd koog moom kon Serigne bi jox na ko ci ndigal mooy itam mu ànd kook mboolem rabita bi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak mbooleem ñi nga xam ne ay sëñ daara lañ sëñ bi ngi ci soññ ndax xam ne. lépp lu ñu liggéey la Sëriñ Tuubaa loolu laa ci war a jiitu njàngum xasida itam sëriñ bi mi ngi ci jox ndigal taalibe yëpp waaye rawatina nag sëriñ xam sutum sëriñ Suhaybu ndax ngeen dégg ngeen kàddu yi mu ko seereel ci njàngam mujj mi te yàgg nag koo seereel sëriñ bi nee na mi ngi ko ci soññ mboole ñi mu àndal ñëpp. bu première saison bi tàmbalee rek fenn fu ci ne ndax dañ ko daa woote ci jumaa ji waaye ren dafa jege woote bu mujj bi moo tax mu ne comme defoon nañ ko te yàggut kon kenn ku ci ne mën nga koy dundal ca daara ja nga nekk wala jàkka ja nga nekk wala pinc ba nga nekk ñu ànd ko moom ba ba ñetti fane safar yi ñu doo koo tàmbalee ci jullikaay bi ci biir loolu itam sëriñ bi jox na ndigal daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitul sëñ Youssou Diop bu alfatih min safar ak see rek moom it njàngum xaside mi fii ci buntu kër Cheikh Mamadou Faare ñu tàmbali ko bis bu yàlla sàkk ak kuréel di fa jàng ñu du ko def ba màggal gi loolu it muy lu yees loo xam ne sëriñ bi ren la ko santaane jox na leen ci ndigal te ñoom itam jekk nañ ndax ay soldaar rek lañ ba leen ko sëñ bi waxee neen leen bu leen ko waxoon tey ñu tàmbali ko loolu lépp itam nag gàttandoo ko rek ak ñaan ngir daje ceeg tawfeex ngërëmu sëñ Tuubaa leneen liñ daa def lépp itam soppiwuñ ci dara ñi nga waajal gàññe niñ leen daa séntoo fas yéene leen dalal na ko suñ kilifa yu baaxee daa santaane conférence yi nga xam ne itam nañ ko waa commission communication nañ ko def ren jii fas nañ ci fas nañ koy def ci penc yi sàmmonteeg nag fi jamono toll dañ def dañuy def at mu jot ñu tànn ci njabootu Serigne Touba gi ak ñi njëkk a topp Serigne Touba ndax ñi àndoon ak Serigne Touba kat ni ma koy faral di waxee ñoo mën a wane Serigne Touba ndax kenn ku ci ne ku xam fañ àggoon ci xam-xam fañ àggoon ci ragal yàlla fañ àggoon ci seen digg ak seen borom ñoo ci ñoom lañ mën a jàngi dëgg-dëgg Serigne Touba moo tax ñu war war leen di wane ba ñëpp gën leen a xam.